c'est le contraire c'est le contraire maître Doudou Ndoye c'est c'est quelqu'un que je connais et très professionnel ah. il est impartial. ses analyses bu koy def da koy def bon ni mu ko xalaatee ak ni mu ko gisee. maintenant par rapport à cette situation je prends des cas yoo xam ne dama ko sukkandiku sur les propos du président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye bi mu demee Mbourkat dafa ne. daf ne li tax. mu joxe ndigal ñu arrêté travaux ci yenn domaines yi ak atribution des titres domaniaux yi nga xam ne tey jii ñoom fi nekk mooy bi muy nekk prison jot na l'affaire de Mbourkat bi mu defee l'affaire de Mbourkat tax na bi mu génnee mu jëlal ko mu jëlee les en main mais ci loolu nee na am na ci ñoo xam ne ce sont ses propos am na ci ñoo xam ne. ñi ngi empressé wu di dem ngir am benn régularisation au niveau euh, des domaines. Mm-hmm. mu ne loolu bokk nañ ci li tax mu taxawal ko xam nga lu tax boo nee tey duma taxawal lii naa bàyyi ba ñu def enquête bu enquête yi demee ba ci cappaandaw ma mosoo ko defar lu ci bëri tey mën naa yàq ci diggante bi te doo ko xam. Mm-hmm. dañ koy rawale maintenant rawale boobu tax na nag mu ne ah. sénégalais yi maay seen président amuñu ku dul man seen litige man maa ko war a défendre parce que man maay seen avocat. Mhm. donc man duma bàyyi li naan xoddeeku xoddeeku balaa ngay lakkale du bàyyi ba dem ba ba ba lépp taxaw nit ñi tabax ba taxawal seen gratte par exemple ñi war a defar defar ñi war a dëkk dëkk. ma ne non attends finalement damay ñëw ngir raser balaa caag nag ngir ma bañ a causer benn préjudice balaa ñoo àgg foofu mhm. ma ne naa naa naa def li ñu naan néggandiku naa taxawal pour les temps ngir ñu saytu bu ñu saytoo ba mbir yi leer ba mbir yi mhm. mais du caaginu littoral bi wala du caaginu mbuurkat wala feneen fi ñi fa am yëpp illégalement lañ ko amee mhm. mais dina mën a permettre ñi nga xam ne tey jii ñoo fa am lañ fa war a am te bu ñu saytoo ci biir nañ ko war a amee demeewul noonu dina mën a permettre ñooñu ci boppam. ñu mën a saytu seen i mbir. ñi nga xam ne nag fële laay xam ne amuñu benn jafe-jafe par rapport à ça ñooñu effectivement ñu daal di déroulé li nga xam ne moom mooy seen moom mooy seen. moom mooy seen digal alors bi ngay wax. Mhm. allez-y. li ma ci bëggoon yokk. Mhm. mooy projet bi programme bi ñu koy bind. dafa am benn benn benn expression bu fondamentale boo xam ne tey jii loolu mooy ligne de mire bi nga xam ne moom la président Diomaye Faye et le tandem le président Ousmane Sonko di di def mooy lan on est là le projet sera là pour soigner et raccorder les fractures sociales fracture sociale yi nga xam ne tey jii amoon na mooy benn nit. Mm-hmm. lu benn nit wala ñaari nit war a bokk wala junni nit war ko bokk benn nit ñaari nit jël ko loolu dafa bokk ci inégalité sociale. ñu ne maintenant qu'est-ce qu'on va li ñuy def mooy dañuy yemale sénégalais yépp ci yoon yemale sénégalais yépp ci wàllu am-am yemale sénégalais yépp ci lépp loo xam ne mooy redistribution des ressources. Mm-hmm. nga xam ne su boobaa. Mm-hmm. yow dootoo santi Kajoor dootul santi ne ah man kat aw doole. te jii ñaata nit ñoo fi war a nekk fii ci Sénégal war a am kër te amuñu kër. Mm. mais du jeex. du jeex pendant ce temps. une seule personne détenir presque 600 terrains. pendant ce temps pendant ce temps une seule personne. ay détenir plus de plus de plus de plus de plus de à 30 hectares.